rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamina walsalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin almakin waala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwatal imaani wal islaami wal ihsaani wal iraadati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group Nooru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñàq di ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu suñu jaamu yàlla ak jéggal ñu suñu rëcc-rëcc ñu di ziyaar ci weeru tedd wi ñu dugg di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu àggaleel ñu ko ci alhamdulillahi rabbil alamina te lépp luñ ci jàmm yàlla rek yàlla nungul ñu ko fulal ñu ko di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te jéggal suñu yëpp njuumte ak suñu yëpp rëcc-rëcc bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ndokkeel kilifaay diine yëpp waaye tam di ci ndokkeel kilifa liggéey bi ak Cheikh Abdoul di ko ziyaare di ko ndokkeel ci weeru tedd bi di ko ñaanal yàlla yàggal ko ci suñu kanam lu bare bare bare bari man ne bëgg liggéeyal islaam lépp yàlla jàpp nalal ko ko te ñu ànd ko moom di jeey sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël siyaar boobu nuyoo bi rek di ko teg ci loxoom di ko ñaan mu jàllale ñu ko ci mboole mbokk yi nga xam ne ñoom lañ seq liggéey bu sell bi di jeey sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñu ngi ñëwaat ci fatwa bi rek muy tontu laaj yi di siyaare suñu mbokk mi suñu mag ji sëriñ Ndir Touba Moussa Ndir euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di ko siyaare ci weer wi mm, di ko bu baax a baax ci laaj yu am solo yi mu fi rotal andi ko ci biir liggéey bi muy moom day laaj lu jëm ci wàllu julli kom liñ doon wax rek muy ponk maanaam maana ni moom lay laaj dañ ko naa fal arkaanu fi salaati wa tusama aydan alwaajibaatu wal faraidu fi l mazhabi malikiya hiya kama yi day laaj kom suñu fatawaayu jàll nii ñu doon wax ci wàllu julli di wax ponk ponk maanaam ci julli maanaam dafa am ñetti tur mooy dañ koy wax al ruknu di ko wax al waajibu di ko wax al fardu mooy farata rek maanaam ruknu ponk mooy farata maanaam dañ koy tudde farata di ko tudde lu war di ko tudde ponk ñett boo ci wax rek maanaam mooy taxaw taxawaay boobu maanaam buñ ne salaati mooy farata julli ya wala ya nga xam ne dafa war ci julli te soo ko bàyyee sujuudu sahwi mënu koo defar waaye danga koy dabaatal wala bu rakka ba jàllee eh, nga dabaat nga julliwaat rakka boobu loolu moom la wax pongu ci julli mooy farata yi rek mën nañ ko wax mooy farata julli farata julli nag mooy yi ma bëgg a lim nii muy niyatu mooy yéene takbiratul ihraami kabarab armal mooy kabar bu njëkk bi ngay duggee ci julli gi alxiyaamu laha ak taxaw gi ngay taxaw di kàbbar kàbbaram armal qiraatul fatihati ak jàng fatiha alxiyaamu laha ak taxawaay bi ngay taxaw di jàng fatiha ar rukuu ak rukoo mooy jàpp say wóom ar rafo minhu ak siggi ca rukoo ba ba taxawaat ak sujuudu ak sujoot al juluusu bayna sajdatayni ak toog ci diggante ñaari sujoot yi boo sujootee benn sujoot bi siggi ba toog doog a sujjootaat beneen sujjoot ba euh, assalaamu muy sëlmal gi nga xam ne ngi moom ngay sëlmal ngir génn ci ju julli gi jilsatu salaam yi jamono jooju nga xam ne assalaamu aleykum toogaay boobu ngay toog al i'tidaalu yemoo maanaam yemale say cër ci biir julli gi at tuma niinatu ak dal gi nga xam ne gi moom ngay dal doo yëngatu benn yëngutu bu bokkul ci julli gi tartibul farata yi niyatu iqtidaa il ma'mum bil imam ak buñ la dee jiite nga yéene roy ci ki nga xam ne kii dalay jiite yii dal moom la wax ponk ci julli waaye tam mooy farata ya mooy ya nga xam ne yii moo ca war beneen tomb bi ci toppaat mooy sunnay julli ndax dañoo war a xàmmee farata ak sunna yi jëm farata dafa am lu koy defar sunna yi am lu koy defar mooy yéem a jëkka lim yi mooy farata lu ci war nit bàyyi ci jig julleem rakka ba mu ko bàyyee bu ko mënee dabaatal da koy dabaatal su ko mënta dabaatal mu julliwaat beneen rakka ko remplacer waaye sunna yi may bëgg a wax nag mooy yi nga xam ne yi mooy waral sujudu sahwi ku ca yokk dara ca julli ga wala nga wàññi ko ci ak njuumte su yi mi ngi tàmbalee ci as suuratu ba'dal faatixati saar wi ngay jàng ginnaaw bi nga jàngee faatixa ba noppi wala aaya yi nga xam ni danga koy teg ci faatixa alxiyaamu laha ak taxawaay bi ngay taxaw di jàng saar woowu ginnaaw faatixa wala ay aaya aljëhru béréb yi nga xam ne dañ fa war a biral nga di fa biral asirru béréb yi nga xam ne dañ fa war a yàllu nga di fa yàllu kullu takbiratin takk takbiratil ihram bépp kàbbar boo kàbbar ci julli gi lu dul kàbbar bu njëkk ba te mooy kàbbar bu ba yeneen kàbbar yi ci des yépp ci la bokk sami allahu liman xamidahu wax sami allahu liman xamidahu ak atashahudu mooy taay bu njëkk ak taay bu mujj bu dee julli guy am ñaari taaye al li tashahudi ak toog ngir taaye taaye boobu ngay taaye wala taaye assalaatu ala nabii julli ci yonente bi baada tashahudil axiri ginnaaw bi nga taaye sa taay bu mujj assujuudu ala sadril xadamayni wal kaffayni wa rukbatayni ak ni ngay sujoote mooy sujoot booy sujoot da samp say tànk sa cati baaram mi tànk yi tege ci suuf sa ñaari bëti wóom yi tege ci suuf waaye tamit sa ñaari teng yi nga tàllal ko daal koy teg ci suuf raddul ma'mumi assalaama ala imaamihi wa ala man ala yasaarihi dallawat néew bi yow mi ñu jiite sa imaam mu ni dañ la jiite ak it ki nekk ci sa euh, càmmoñ bu fekkee nii am na ko nekkal julli gi mu féete la càmmeñ nga delloo ko asalaamaaleykum jëm azaidu ala tumaninati dal googu mu la waxoon ca farata ya loo ko dolli rek loo ko gën dëgër euh, ci la bokk al jahru bi taslimi ak bi ngay sëlmal asalaamaaleykum jëm maanaam nga wax ko ca kaw al insaatu lil imaami fii ma yajharu fiihi buñ la jiitee bu sa imam day jàng ca kaw nga diglu ko te bañ a jàngandoo am moom asitratu lil imaami wal fazi ak boo dee julli foo xam ne bi biir jàkk wala jumaaye ngay ragal ku romb ci sa kanam nga wut saatir bu dee ni imaam la day wut saatir yóbbaale ko ñu muy jiite bu dee yow doo nga jullit nga wut saatir boo bu lii mooy sunna yi nga xam ne yi mooy sunnay julli nga xam ne ku ci bàyyi dara ngir juum wala euh, nga yokk ko da nga koy sujoodal sujoodu sahwi mooy sujoodab jamaj beneen laajam bi ci topp mooy laaj comme ku bàyyi bi ponk muy farata ci julli gi sujoodab sahwi mënu koo defar maanaam da ko war a dabaatal bu rakkaa ba bu rakkaa ba ca topp fasoo nga euh, julliwaat bële nga xam ne ca nga bàyyi woon farata ja dana loolu kum dal ci julli goo xam ne gi euh, ñeenti rakkaa la nga dem ba ca ñetteelu rakkaa ba wala muy ñetti rakkaa nga dem ba ca rakkaa bu mujj ba muy ñetteel ba ba tey maanaam fekk sa rakka bu jëkk da nga caa bàyyi woon farata dem ba ca ñetteelu rakka ba daal looy def ak julli googu loolu it lañ ko ci wax mooy dabaatal rek maanaam julli gi moom dabaatal giñ la waxal maanaam saa boo farle ko ne bàyyi nga farata fekk nga dugg ci beneen rakka fekk rakka boobu fasuwut da ngay def da daal di dem def farata eh, joojee nga bàyyi eh, doga dugga ci sa beneen rakka boobu ci topp boo duggee ci ñaareelu rakka bi nag ba rakka boobu fasu xamal ne rakka bu njëkk ba ne moom jàllatul yàqu na bii nga toll moo koy remplacer ku dugg ci julli dem ba ca ñetteelu rakka ba nga fàttaliku ne rakka bu njëkk ba wala bu ñaareel ba bàyyi nga ca farata foofu nga toll ci ñetteelu rakka bu moom danga koy bàyyi te dem julli ji rakka boobe nga xam ne bi ca nga bàyyi farata ja soo paree doo ko julliwaat Euh, rakka boobu nga toll woon muy bu mujj bi wala muy ñetteel bi te nga sujjóot sujjóotu sahwi dabaatal gi daal moom yaa ngi ci biir julli gi foo farle ko ne rakka am na rakka boo bàyyee farata rakka boo bàyyee bu fara bu ca rakka ba dem def farata boobu doo ñu ci boobu su ci rakka bi topp euh, façon nag nga jàpp ni rakka bay jiitu tama bàyyi ci farata ja jàllatul baaxatul nga dabaatal ko donte danga dem ba julli gi jeex ba nga sëlmën doga farleku ne am na rakka boo xam ne bi bàyyi naa ci farata su fekkee ni toogoo lu yàgga yàgg wala nga jóge fi nga toogan ba génn euh, jàkka ji su yàggut daal maanaam dañu da ngay jóg julli rakka boobee ci boppam daal di toogaat taay sëlmal daal di sujjuut sujjuutu sahwi gi daal moom du mën a ñàkk waaye nag soo fàttee benn farata ci julli gi ba mu yàgg lool maanaam nga yeex ko fàttale ku ba diggante bi yàgg lool lool bu baa dañ naan julli googu moom yàqu na jàllatut maanaam da ngay baamuwaat julli ga waaye soo ko teelee fàttale ko nag rakkaaba rek ngay julli daa taay sërmala daal di sujud sujudu sahwi sunna yee ma la wax nag muy sunnaay julli yi man lim ko fee léegi dañ ko def ñaari xaaj muy dafa am sunnatun muakkada ak sunnatun xafifatun sunnatu sunna boo xam ne bii muakkada la doon maanaam boo ci bàyyi benn rek wala nga yokk ca day waral sujudu sahwi waaye sunnatun xafifa te muy sunna su oyof ñaar nga ci bàyyi walla nga yokk ko ci mu doog a waral sujuudu sahwi su ko defee sunna mu akkada yi nga xam ne yi boo ci bàyyee benn rek maanaam day waral sujuudu sahwi moom lay lim nii su ko defee juróom-ñett la ya ca des nag nga xam ne mooy sunna xafifa ya waaye lii may lim nii daal mooy sunna yu dëgër yi nga xam ne yii yu ñu feddali yi nga xam ne yii benn rek boo ko ci bàyyee wala nga yokku ko day waral sujudu sahwi mooy euh, as suuratu muy saaro ngay jàng ginnaaw fatiha euh, wala aaya ngay jàng assirru fi mahallihi bu fekkee ni dangay ngay biral euh, yalu yalu ca bokk al jahru fi mahallihi biral itam ca bokk at tashahudul awwal taaye bu njëkk tashahuru sani ak ñaareelu taaye al juluusu li tashahuri ak toog ngir taaye ak takbiiru maratayni fa ak sara wala nga kàbbar euh, ñaari yoon wala lu ëpp ñaar yoon at tasmiu maratayni ak nga wax sami allahu liman hamidahu ñaari yoon yi daal mooy sunna yu dëgër yi nga xam ne yii benn boo ci bàyyi rek walla nga yokku ko su booba day waral nga def sujuudu sahwi kon ya ca des ñaar nga cay bàyyi sujuudu sahwi dog la war yeneen laaj yi ci topp Serigne Mbaye Diagne Maxey Lambaay Touba Maxey Lambaay moo ko fi yónnee moom itam ñu ngi koy ndokkeel moom it ci weeru sel wi ñu dugg weeru tedd wi di ñaan yàlla nungu ñu suñu jaamu yàlla jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom itam day laaj lu wàllu lu ci lu jëm ci wax aoudu billahi min asheytan rajim ak bismillahi rahmaani yooyu de muy aoudu billahi min rajim ak bismillahi rahmaani rahim bu dee ci jullik farata la ñun ñi nga xam ne dañoo war a topp ngiram imam malik moom imaam Malik dañ koo sib dañ koo sib ci ak julli maanaam ngay julli julli farata di wax aouzu billahi mina shaytaani rajim ak bismillahi rahmaani rahim wala nga wax benn ci ñaar yooyu yooyu daal bu dee ci ngërëm imaam Malik mi ne nan ko topp mi ñu ne nan ko topp ñoom moom dañ koo sib waaw lu ñu sib nag moom bu dee ci julli farata laay wax dañ ko caa sib lu ñu sib nag moom bañ koo def defe naa mooy gën def ga waaye bu dee ci jullik naafila la moom may nañ la nga wax aawuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ci saa booy tàmbali di jàng fatiha waaye tamit ñaar yooyu mën nga ko wax ci bopp saar wu mu nekk maanaam bu dee ni bi nga jàngee fatiha wax aawuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la nga cay tegaat maanaam ci jullik naafila lay wax mu doon aw saar woo xam ne ca bopp bala la tàmbalee bu la neexee mën ngaa waxaat auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waaye bu la neexee it mën ngaa wax bismillahi rahmaani rahim rek waaye bu dee ni da ngaa jàng faatiha eh, te la nga cay tegaat ci alxuraan yi muy ay aaya su booba da ngay tàmbalee ca aaya ba rek bañ a wax auzu billahi ak bismillahi loolu daal mooy atteeb Euh, asbana muy wax a'uzu billahi mina shaytaani rajim ak bismillahi rahmaani rahim bu dee jullit naa la moom may nañ la nga di ko wax ci booy jàng fatiha ak booy jàng saar woo xam ne bii ca bopp ba ngay tàmbalee waaye bu dee julleek farata la nag ci ngiram imam Malik moom dañ koo sib maanaam bañ gee wax mooy gën nga di ko ca wax beneen laajam bi mooy lu jëm ci wàllu naafil la muy Euh, mën nañ ko wax salaatu taraweex muy jullik taraweex bi muy naafila comme niñ ko xamee ci weeru koor nga xam ne ñu bari naafila moom ci weeru koor lañ ko gën a miine ci lañ ko gën a xamee waaye moom daal mi ngi laaj euh, lan mooy atteeb naafila googu ñu def ci weeru koor ak euh, nan lañ koy jullee ak njuumte goo xam ne gii nit ki da ko def ci biir ak naafila maanaam kuy naafila dëjë sikki sàkka limab rakkaay xam naa dañ koy def ñaari xaaj rek muy nan wax ci jullit wi taraweex gi ba pare muy naafila ci weeru koor même lu dul weeru koor sax dañuy wax salaatu taraweex ndax yonente bi sallallahu alayhi naafila gi ñuy def ci weeru koor yu ne nga xam ne fukki rakkaa lay doon ci ñenn ñu nu jàngal fiqh fukki lañ ne moom la doonte wóote nañ ci ndax am na ñoo xam ne wax nañu ba ñaar fukki rakkaa waaye liñ ci gën a jàpp daal muy fukki rakkaa ak boo paree boo julee fukki rakkaa ba pare eh, teg ci as safaw wal witr muy ñaari rakkaay safa ak benn rakka wiitar nga jaarale ab ab ci seen diggante maanaam doo doo ñett yëpp danga leen di xaaj ji kon daal julli naa fi léegi ñu def ci weeru koor euh, sunna mu akkada la maanaam sunna su dëgër la ci dajaleek boroom xam-xam yépp waaye itam nañu xam ne euh, lu am am solo la lu am ay ngëneel la lu baaxa a baax la rawatina ci weeru koor bii ñu nekk waaye tamit ne ne hiya min sha'airil islam al azima jullik naafila gi ñu koy def ci weeru koor rawatina eh, ne dafa bokk ci yi nga xam ni moom la ñuy xàmmee lislaam mu màgg lool waaye tamit eh, bari na i ngënil lool lool yoo xam ni ku koy def rek eh, yàlla mën na laa xéewale ngëneel yooya te bokk na ca ngëneel ya na ne sababun li maxfirati zunubi na ne naafila boo koy def yàlla mën na ci sukkandiku ci yërmandeem ak ak njëggalam maanaam jëggala say bàkkaar yow defan yépp waaye tamit bokku na ci ay njariñam muy sababun li nay li ajri xiyaami layli liman sallaha maal imaam nee na nag julli naafila yooyu ci weeru koor bi rawatina kuy góorgóorlu di dem ca mbooloo ma ab imaam di la jiite nga di ko julleendoo ak moom ne loolu mën naa sabab nga am ca yoolab ku taxaw guddi gi yépp di ko naafila ak di ko jaamu yàlla kon loolu lenn la ci njëriñi salaatu tarawih ñu tënk ko loolu waaye njëriñ ya bari na lool lool te ngëneelam yooyu ak njariñam yooyu mooy naafila googu xadis yi ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax dafa bari lool waaye buñ ko doon tënk rek ci xadis bi mu ne man xaama ramadana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbihi Seydina Muhammad jële nañ ci moom mu wax xadis bu wér-wér ci ne ne ne Seydina Muhammad ne képp koo xam ne kii weeru koor wii yaa ngi ci taxaw guddi di ko di di naafila di def ay naafila ne ne li nga jotana am ci ay bakkaar laata koor gi di ñëw yépp dañ la koy jéggal yaakaar naa nag nit ki li muy am ci ay bàkkaar xamul nu mu toll Seydina Muhammad ne su weeru koor yu ñëwee ngay góorlu di julli julli taraaweex gi te mooy naafila gi li nga amoon ci ay bàkkaar mu jiitu ñu jéggal la ko loolu dong bu ci yeman ci ngëneel day day sukk ay ngëneel kon yàlla nañ ci yàlla doolee defal tawfiq daal bañ gën cee góorgóorlu ci luñ ci mën a taxaw rek ci ñaari tomb nga xam ni moom la ñuy gën dundale weer yi muy euh, di woor su bëccëgee waaye su guddee itam maanaam lu nu mën a def ci ay naafila rek ñu di ko gën a def ci guddi gi waaye buñ ko mënee def ci bëccëg ba tey baax na waaye guddi gi da ciy gën a am solo lool nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax beneen laajam bi mooy bi mujj ci laaji tey mooy xukuman shakka fi nafli hal sala nii aw waxidatan ay fi salaati tarawih hal yasjudu xamantiha in nafli am baadahu beneen laajam bi dañ laaj ne ki nga xam ne ki daa am yéene yi naafila fukki rakaa waaye bi mu jullee ñaari rakka wala ñeent wala juróom benn rakka eh, ñaari rakka daal toll na ca eh, julli gi des lu mat ñeenti rakka maanaam muy jóg di julli ñaari rakka waaye ñaari rakka yi mu ngi ciy sikki sàkka ndax ñaar la wala benn la loolu mu ne ndax day xaar ba naafila gi yépp jeex muy fukki rakka yi jeex wala day sujud sujudu sahwi ci ñaari rakka yooyu muy sikki sàkka julli na ca benn wala ñaar waaw loolu lañ ko ci wax mooy foofu mu toll muy ñaari rakka yooyu nga xam ne ci la sikki sàkka di xalaat ndax ñaari rakka la julli wala benn day jàpp ne benn la julli te julliwaat beneen muy ñaareel ba su noppee su sëlmalee daal di sujjuut sujjuutu yi balaa jàll ca yeneen rakka ya ca des ndax ñaari rakka nga xam ne yii ci lay sikki sàkka moom dafa am jafe-jafe muy euh, juum na ca sikki sàkka na ca mel ni da caa dolli kon euh, am na lu ñu ca war a defar kon bala muy mën a jàll ci yeneen rakkaa yi di ko julli ñaari rakkaa yu da koy defar ba mu dellu si ba normal muy dog a jàll ci yeneen rakkaa yi nga xam ni moom la dese ca naafila ga waaye nag du mën a xaar ba ne damay naafila fukki rakkaa yi ba mu may doog a sujjóot sujjóotu sahwi ba ma war na sujjóot ca rakka yële ma doon sikki sàkka ñaari rakka yooyu moom lay sujjóotal sujjóotu sahwi doog a continuer waat ca yeneen rakka yi ca des mottali ko yàlla ñu yàlla defal tawfiq bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi ذاك يدار